diggante cat cat li ñuy wax cat ak bët parce que damay gis sa loxo nii nga ne cat la mbaa ñaare ñu ne kii foofu itam dafa bëgg nga leeralal ñu ko. waaw ah, léegi nag xam nga euh, seet na in ci nekk mun nga nekk waxambaane maanaam tey nga entraîné ba dix gann maanaam nga dajeeg moom mun naa saway temps yi da ko jàpp de léegi nag ngelaw loolu ci gémma ci gémmiñam dafa ànd ngelawu seytaane ndax moom seytaane ñu ànd. léegi su ko defee loolu bu la ñëwalee da ngay feebar boo amulee sécurité boo amulee curage su ko defee nag dem nga ni man daal wax jigu mooy quoi parce que bi ma dajee ak diw ba ma waxee la ma wax ba tey sama yaram day tàng may jeex nangam nangam man la yow li ngay wax nii fekk yow li nga remarqué mooy li nekk moo tax ñëpp d'accord ci ne bët am na moo tax ñoom am na ci koo ci jàppoon temps yi la ci gannaaw fekk dama nekk ci benn dëkk fële ñoom bu ñu nekkee seen xaal xam nga boo gisee mag ñi bu njëkk ñu daan bañ mag ñi